dal leen ak jàmm guerre bi tàmbali na ci diggante Yaa Awa ak ancien patron bi di El Hadj bu 2 ginnaaw bi patron bu 2STV bi porté plainte kii di Yaa Awa ak waa TFM di tele bi mu nekk ci jamono ji ngir émission bi nga xamante ni dafa jàpp ni dañ ko ko sàcc di célébrité religion te Yaa Awa doon ko def foofe ca 2 ci at yi nu génn mel na ni bile émission kii di El Hadj Ndiaye jox na ko importance capitale ba tax mu ngi def ay kéemtulaay kàttanam ngir récupérer boobule émission bi nga xamante ni sos nañ ko ci atum 2013 te ki nga njëkkoon di anime doon wuyoo ci turu mbiri lii wane nag ni El Hadj du bàyyi mu sedd moo di ginnaaw plainte bi nga xamante ni déposé woon na ko yaa awa démb wujji woon na foofe ca gendarmerie bu Faidherbe moom ancienne animatrice bu 2STV bi te jamono ji mu nekk ci TFM télévision Futur Média jot na def lu toll ci ñeenti waxtu ca section de recherche bu Faidherbe bilee xibaar nag ki ko xamle moo di journaliste bi di Tange Tandian ci ab audio bu mu def ci chaîne youtube am bu ñu sukkandikoo nag ci Tange Tandian ki ñu njëkk a woo moo di Yaa Awa waaye des na ñeneen ku ci mel ni ki nga xamante ni moo njëkkoon di présenter émission bi foofee ca 2STV di mbiri ak waa direction administrative bu groupe Futurs média dañ leen di bàyyi rek ngeen déglu leeral yi ak Tange Tandian indi coow ci dëkk bi diggante 2STV ak TFM te direction générale 2STV porté plainte foofu ca section de recherche bu Faidherbe jàpp leen ni que coow li jeexagul première convoqué muy l'intéressé di Yaa Awa Dieye tey demoon na wuyu ji section de recherche entendre nañ ko nag ci ay waxtu yu bare lu toll ni ci dix heures ba quatorze heures yaawa mi ngi ci loxo section de recherche yooyu ñu koy entendre ci ay question lu jëm ci wàllu célébrité et boobu mu jëlee 2STV mu mu doon animé donc mu bëgg ko yóbbu ci TFM ba mu dellu moo tax waa section de recherche tamit pareeguñu am na ñeneen ñoo xamante ni danañ leen convoqué ba ci waa télé ba ñoom ñëpp danañu jaar foofu ca section de recherche à partir de lundi ba ci kii di mbir yi mi njëkk animé émission bi atum 2013 foofu ci 2STV moo moom dina dem foofu ca section de recherche moom it ko déglu jàppale ni que yaawo mooy première intéressé boo xamante ni convoqué woon nañ ko tey ci section de recherche dix heures ba quatorze heures